salaamaaleykum mbokk yi yéen ñuy suivre ci askan wi TV bu ci nekk ñoo ngi lay nuyu dellusiwaat nañu ci seen émission bi nga xamante si ne ñu ngi koy ànd ak Serigne Abdou Khadir njaay fii ci askan wi TV kon Serigne Abdou Khadir ñoo ngi lay nuyu. jërëjëf sëñ maam Thierno ñoo ngi lay delloo nuyoo di siyaare bu baax mboole mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci site bi de askan wi TV ñoo ngi leen di siyaare bu wér di la ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen fu ngeen mën a nekk. den wax ne xam naa namoon ngeen ñu waaye ñoo leen raw fopp ñoo ngi siyaare mbooleem fu sunu client nekk moo xam client la yi nga xam ne dañuy safo yépp di safo suñu jëmm loolu yàlla rek moo ko man xam naa nag tey sëriñ bi dafa mel ne dañuy def li ñuy wax tàngalaat tàngalaat maanaam dafa am yoo xam ne daf fi jaaroon ci ay ndomba ak ay jaaro te mbokk yi soxlawaat ñu ñëwaat ci ngir indiwaatal leen ci ay leeral ci yooyu nga xam ne jaaroon na fi muy ñaari ndomba muy ndomba gu weex ak ndomba gu ñuul comme ni ñu ko gisee noonu ci image ak jaaro boobu jotoon na fi jaar sëriñ bi joxewoon ci ay leeral mais dafa am ñu wax ne dañu bëgg ñu ñëwaat ci ngir ñoom ñu gën ci am ay leeral ci par rapport ak émission yi nga xam see ne raw na leen kon sëñ bi ginnaaw bi ñu la nuyoo dañuy daal di jël si ci yi nga xam ne jaaroon na fi yi nga xam jaaroon na fi muy ñaari ndomba yi ak jaaro bi dañ ci ñëkke rek ndomba gu weex gi nga xam si ne moom moo ànd ak euh, ay téere lu tolok ñent téere def naa mo ngi ci ndomba gi maanaam boo ci ñëwa doon ñëwaat di ko leeralaatal mbokk yi ndomba gi lan lay jariñ dëgg-dëgg ak lan mooy gan ndomba ci ndomba yi euh, jërëjëf sëñ maam Thierno macha allah émission bi ni nga ko waxee mbokk yi noonu rek lay demee daanaka du émission bu bees ndax li ñu fiy leeral leeroon na xëy na nag euh, kenn ku si ne ak dégg-déggam ñëpp yemuñ ci dégg-dégg waaye da ci am ñoo xam ne dañuy wax ne xam naa bëggoon nañu am lu gën a leer léeg-léeg sax nit woola maam Thierno daan ne ne dañuy mujj di séeneen <laughs> ndax duñu xam ban ndomb la ñu war a jël ci ndomba yi loolu nag moo waraat ñu ñu moo waral ñu amal émission spéciale pour leeral leen dëgg-dëgg euh, ndomba yi lu yomb nag wax dëgg yàlla ndax suñu jotaay duñu ko may waaye benn bu si rek lañu ñu leeraloon danañ ci tibbaat leeral ci loo xam ne yaakaar naa dana gën a yaatu tuuti bu ko defee balaa loolu sëñ maam Thierno nag may may ma ñëw tuuti ci actualité incha allah di wax ne maam Thierno gis naa site yuy daanu waaye gis naa maaraay yuy daanu yuy daanu wallaay lazim Euh, mooy ni ma leen ko waxee nag maam Thierno man am ma temps fii di waxantu yow du ma la wax sama bopp nit ñi laay wax sama bopp ñi ma xamagut waaye ñu ñu xam moom laaju ñu leen di wax ñun ñooy kan ndax léegi-léegi nit jëflanteeg yow sax day dem ba sa digg ba day mujj na la sëñ bi def naa la sama sëriñ man bi may jëflanteeg yow pour ñaan sax xam ma woon sax dëgg-dëgg yaay kan waaye mooy li ma leen di faral di wax sëriñu asraarkat dafa am ak ay sëriñ yoo xam ne du ñuy asraarkat waaye nitu yàlla lañ loo gis nag day am jaaruwaay waaye euh, maam Thierno bis dana ñëw ñëpp danañ xam ne yàlla waajale na ma leneen lu dul lii liggéey bi day jéggi fii di dama dem incha allah bu ko defee maam Thierno wallaay laa ay siit danañu daanu këlëb ci suuf te tàmbali naa am nag incha allah site internet yoo xam ne dañuy daanu te la leen di daaneel ci ay maarab bu la jaar kenn liggéeyu leen xam nga lu ko waral ay tappale gis naa maara yu daanu kenn liggéeyu leen kenn xeexu leen damay bañ nag ñu dem ba jëmmi jamono ñu ñëw dékk leen fii mekoro ñi ne fii di tuumaal naan dañ leen a xeex kenn xeexu leen ci ay tappale lañ nekk wallaay lasim da a nekk ci tappale ba daanu waaw boo ko defee nag duma ci bëgg di xóot lool waaye am na ci sit boo xam ne maam Thierno site bu mag a mag la ci sit yi dalal Mara bu ngeen demee lim doon am ci vie kenn xamul nu mu toll fi mu ne nii boo demee. Euh, nga dugg fa nga xool ay vidéo vidéo yi muy def ci 4 jours léegi ay 60 fii la yam ci koo xam ne da nga doon def vidéo léegi balaa mat benn une heure de temps nga xam nga am ay 4000 vies léegi ngay dem bay def émission muy am 2 jours trois jours ngay am ay 67 vies vies yi gën a bëri yi nga xam ne day am cinq jours léegi dangay gis ne day am ay 300 nangam. léegi daanu ay tappale. wallaahi laxasim ay tappale la yow xam naa dangay laajal nit ñi rek waaye yow xam nga ci dara ndax man lu may toog fii dama ci wane përëf yow boo ñëwee man maam Thierno du bëgguma benn benn sa ñëw fii di ma jàppale ci ay fen tëlu ko sa am taam lu may wax damay bëgg mu doon dëgg ci man waaw bu ko defee loolu dara tegu leen ko maam Thierno lu dul ay tappale bàyyi leen di ànd ak sëriñ siy dox ci ay tappale ngeen di ànd ak ñoom ci loolu man soxluma kenn ku may defal promotion boo xam ne ci tappale nga koy teg damaa bëgg lu may def mu doon lu leer te maam Thierno site internet yi ma lay wax nag leneen daane du lenn lu may ay tappale ndax xam naa ci site bu mag boo xam ne bu mag a mag boo xam ne maara bi ko yokk a daane maara bu mag a mag la moom yëmut ci doon sëriñ sax waaye daa wax ne ak sëriñ la moom daka jekk bu diine def nay tappale tegi tappale ba moom daanu na moom maara bi ànd naag waaj yëpp daanu baye bo ngeen tari mu jugaat du nekk lii maa leen ko wax di fii ci àdduna wala la sim du ngeen jugaat wala bokkon ci leneen lay doon waaye bu dee yow sëriñ bi du doon métier ñaan la sim du doon média yi doo ci jugaat incha allah beneen bi ci des maam Thierno mooy doomu aadama yi nañu yeew gis nga yenn foo ista yenn foo ustaas yi di toog ci télé yi naan dañuy sikk wàllu asraar dañuy fen waxuñu dëgg man maa ko wax nag te maa jël engagement wax ko bu wax waaw waxuñu dëgg d'accord naa nag ci ustaas boo xam ne dangaa toog na lu bari ci yenn ci maaraay dañuy tappale dañuy caaxaan dañuy lekk seen xaalis loolu moom ànd naa ci ndax dëgg la nag métier moo dem maam Thierno ñuy tappalee nga ca loolu yàllaa ko def du dañoo yeb asraar rek waaye du asraar doom waaye nit ñi ñoo war a yeewu gis nga yenn ustaas yi toog fii naan leen bu leen dem ci sëriñ di ko jox seen xaalis ñenn ñi jàng nañ ba xam yan ayat lañuy jël utiliser ko pour ñoom seen mbir di dox kenn du man ci ñoom dara seeni njabot seen mbir di dox kenn du man ci ñoom dara suba ngoon ñi ngi bind di naan di bind di sangu di bind di jox seeni njabot yeen nit ñi nga xam ne yéen a leen di déglu ku ci jàngut demal nga xooli sëriñ bu jàng mu defal la ñaan wallahi lancim euh, kilifa gi num tuddati na ko sëñ sëñ <laughs> réew mystique la fees del mën a réew mystique la fees dell te loolu mooy li mooy li dëgg sëñ Moustapha si men waaw nee na gars yu baax yu bëri léegi mystique moo leen rey loolu ku xamul dara rek moo koy wedd waaye réew mi mystique la saf sap si suba rek maa ngi koy wax benn waaye gis nga réew mi maam coono mystique bi dem na ba léegi ni coronavirus doo doonee benn virus boo xam ne day daw di wàlle léegi mystique noonu la mel ci réew mi comme benn espèce u ngelaw boo xam ne day tas nga xam ne da nga koy nooyi sax mu topp la beneen bi ci tegu mooy ndax duma bëgg lekk temps bu yaatu élection yi ñu nekk nii maa ngi moytuloo nit ku mën a doon euh, selebe yoon yi ko fekk ndox mu tooy bul ko jéggi bu la ko lenn àddina jaral loolu nag duma ci bëgg a xóot lool waaye mystique bi fi yoon yi daje képp ko dox ba fekk fa tooy tooy boo ko jéggee sa yàqu xañ na ci dem leen ngeen jële ay matuwaay ci seen bopp waxuma kenn mu ñëw si Abdou Khadir nag waaye dama ne leen ngeen dem jële ay matuwaay seen bopp lu ko mooy seen àdduna dana yàqu seeni njaboot du ngeen leen jariñoo seeni wërsëg yàqu seeni liggéey yàqu ngeen ñàkk àdduna alaaxira leeruma <laughs> ndeysaan jërëjëf maam Thierno macha allah gi moom it jaaroon na fi waaye kii maam Thierno ndomba gu yéemee gi wallaay ina su ma wax sama yaram dafay diis gan gu yeme ngi man ci na leg leg da mag ya ni da nga da dugg sen nek ñew fekk ndombo go xamne dañ koy wékk non ci nek bi rek buñ ko takke bala ñu ko takkat yalla xam lu new lañ koy utiliser ci na xam-xam amna. wallahi nasim sim gis nga ndomba gi képp koo xam ne am nga ko man Abdou Khadir maa la wax dangay gudd fan loolu kenn mënu ci dara waxuma bu soobee yàlla de yàllaa ko dogal ba noppi jox ñu secret bi ñu am ko <laughs> sootu bàqara ñu jàng xam nañ ko juróomi isib la mu ngi ci biir loolu mooy baas bi rek nag baas bi am na saar yu gudd yoo xam ne mi ngi ci biir alxuraan ñoom ñoo ko wër nii waaw. saar wu gudd sax ndomb gi maam Thierno maa la garanteel da ngay gudd fan incha allah wala ay lansim da am force la loolu kenn mënu ci dara say mbir day dox da ngay am loolu force la kenn mënu ci dara dangay gudd fan man Abdou Khadir maa ko wax da wér man Abdou Khadir maa ko wax boo ko takkee bu la docteur tiimee bu la neexee nga ñu jël sab xaalis wallaay lazim man ngaa feebar nag feebaru comme sama yaram wee dama wàcc sama yaram bi xaw a diis yooyu joxuma ko waaye feebar ba docteur di la tiim doo ko def saw fan day gudd say mbiri wërsëg foo mën a nekk day dox dangay am bayre ndax bu ñu ko liggéeyee ba noppi ñu gileem day na ci biir ak leneen ak leneen ak leneen dafay ne ci biir waaye xam nga lu ci yéeme xam nga jaaroon na fi yaakaar naa bu ñu demee seet émission yi dañuy fekk ñu def ci léegi-léegi sax client ñëw daan ne da mel ne damaa gis ne ndomb gi 300000 lañ koy liggéey déedéet ndomb gi dana jéggi mille sax léegi-léegi ndomba gi dana wàcc yées mille léegi-léegi client yi danañu laaj waa lu waral loolu ma wax leen ko saaru bàqare biñ koy liggéeyee dafa am benn salaatu boo xam ne aaya bu jeex dangay dugal salaatu bi dugal turu comme tey ci misaal ñu daan ne xujja jóob bintu mbenn fay ku ko tudd nga baal ma damay damay damay misaal rek damaa bëgg wax ki moom ndomba gi daal dañ ciy def turam ak turu yaayam door a dugalaat beneen aaya noonu lañ koy toppoo ba mu jeex ak salaatu boobu ak saar yama la waxoon léegi nag loolu maam Thierno moo waral ndomba gi bu ñu ko liggéeyee nit ba noppi même boo ko tëkkut yow yiñ la wax yiñ ci wax nii même boo tëkkut ndomba gi yëpp danga koy gis même bu dee dañ laa jox ndomba gi sax nga jël ko wékk nee sa néeg léegi-léegi rek nga koy takk bu la neexee teg nee dañ ciy liggéey sa tur ak sa turu yaay nekk gi mu nekk ci biir saar yi di ca dund moo waral même boo ko tëkkut say mbir day dox même boo ko tëkkut da ngay aaru même boo ko tëkkut sa fan day gudd ndax lan sa mbóot daa ne dañ ko liggéeyaale ci biir téere bi xam nga lu waral tamit léeg-léeg muy dépassé 300000 kum neex buñ koy liggéey salaatu ñu def dañ lay dugal yow sa tur sa njaboot kenn ku ne turam ak tur yaayam xam nga boobaa liggéey bi day gën a metti bu ko defee bu boobaa yow ndomba gi bu la neexee mën naa doon ndomba nekk da ngay aaru yaag say njaboot yooyu waaye boobaa nag ah, euh, da nga laal xaalis bu njaboot gi doonee benn moom mën naa tane waaye bu ñu doonee ñett ki ñeent liggéey ba day gën a metti waa day seet trop sax day gën a metti waaye bu fekkee yow dong la 300000 yooyu ñu doon wax sax mën na faa bañ a àgg xanaa loolu leer na incha allah moom sett gaw la waa sett gaw sett gaw yépp ngay gaw ko am mu day la bañ a takk incha allah mu am ko rek teg néegam incha allah eh, bu dee ndomba gi kii yaakaar naa xam ngeen ko mooy ndomba ak coow li nga xam ne jaaroon na fi tamoon coow lu bari léeg-léeg dañ ko tuddi ci émission yi di ko junj rek naan ndomba gi juróon coow lu bari li ñi ko gisutoon gii la juróon na fi coow lu bari nag dama leen wax ne la ndomba gi maam Cerno ndomba ak sëriñ la wallaay lancim ku ko takk bu la jiit fettee ma delloo la sab xaalis jiit <laughs> bu la jiit fetee wala jaan màtt la sax ma delloo la sab xaalis ndax kaaraange gu ëpp gu ne ci ndomba gi ma waxoon ne ndomba gi képp koo xam ne takk nga ko boo duggee koso bu la caab féetee ginnaaw ma delloo sab xaalis ma wax ne gi képp koo xam ne takk nga ko boo duggee si oto mu def accident yow bu la dara dalee boo ñëwee ma delloo la sab xaalis gu ñuul gi waaw maam Thierno wallahi boko takke bo rombe xaj mu bëw la dàq la boo ñëwee jox la saf xaliss ndax secret bu woor bi nga xam mo nek ci ndomba gi ndomba gi boko takke serign bo jeflantel bu na la dama lay yaq wala dama lay def nangam dama nga teud sa lal nga nelaw ba yandor wallahi alxasim serign lu mu mën xam ci aduna mo xam luy nday jor wala lu jóge chamoy bu la laalee yaq wallahi alxasim ki serign mënut ci dara ñom bañ nañ ko dañ ko jël ci sax am na sëriñ yoo xam ne dañ fi jël si ndomb gi kon sàkkaa yéen waaw bu ko defee kon ndomb gi mooy ndomb gi juróom cooli dama waxoon na ne képp koo xam ne am nga ko giiru dund maa la garanté yow caabi du la féete ginnaaw te yii ma wax yépp mi ngi ci maam can boo doxee ci àdduna di dox ba nit agresseur kar la agresseur la wallaay la sim boo ma jox la sab xaalis boo takkee ndomb gi di set gaw di 17 gaw yi xam nga ñen ñoo ko àttan njiitu réew képp waaye képp koo xam ne doonoo njiitu réew doy woo dara 17 gaw yi buñ la joxee set gaw yi it yow 9 gaw yi rek nga utiliser waaw bu fekkee koo xam ne dafa doon ay chef de quartier xeet yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne njiit yooyu nga xam ne taxul mu rëy lool 14 gaw ngay waaye daal li ci gàttal li fekk doonoo nit ko wax na président spécial nga yow waroo gaw set waaye président rek moo àttan di set yi président na doon réew mu mën a doon kii boo ko amee wallaay laasim jëloon ngay dem ci benn sëriñ mu lay jox ñëpp ci yam kenn du la xeex bañ a àttan déedéet opposant mënut a takk di set gaaw moom 14 rek doy na <laughs> wallaay laasim képp ku la liggéey wala nit jëf la dara ci àdduna wala nit koo xam ne maam Thierno dafa nekk ci ay mbokkam ñu koy xeex lu ko ci dal bu ñëwee ma jox ko ko incha allah. kon yaakaar na bu leen ko laajaan nag ndax wax ngee ko wax gi duñ ko tal duñ ko man temps bi duñu ko may maa ngi cee na dugal ma ci leneen incha allah. <laughs> ndeysaan sëñ maam Thierno as-samsu jaaroon na fi jaar la boo xam ne ci kaaraange lañu ko liggéey comme yéen na ko doon laajaan nag ngeen déglu bu baax jaaro yi dafa bëri ay façon yu bokkut ci kaaraange lañ ko liggéey ak bayre ak wërsëg asamsu wal xamar boobu moom dikkut waaw waaye am na beneen bu dikk danañ ci àgg asamsu wal xamar ci kaaraange lañ ko liggéey bayre wërsëg lu dul ñett yi garanti lu ma ko kenn waxuma kenn mi ngi ci waaye li ci yéeme mooy dafa am ci biir xulóobul xalaayiq xulóobul xalaayiq mooy xolu mbindeef yi xulóobul xalaayiq boobu nga xam ne moom lay àndal dafay ànd ak ndomb gu yéema goo xam ne xulóobul xalaayiq lañ ko liggéeyee moom as-sams wal xamar xulóobul xalaayiq boobu dañ koo tëgg ci biir Fatiha mu génn ci biir jalaal saf sàpp ci Muhammad martaba karamatu Muhammad looloo waral ku ko am forcément say mbir day dox waaw loolu yàlla moo ko maye ba noppi forsement da ngay am kaaraange asam su wal xamar forcément da ngay am bayre kon ñett yi yaakaar naa leer na moo nekk ci jaaru asam su wal waaye day ànd ak ndomb yaakaar naa loolu leer na moom ndomb gi ñoo ànd voilà jaaroo ba moom it jaaroon na fi moom it bokkoon na ci liggéey yi nga xam ne indi woon na fi coow lu bari ndax xëy na dama ne woon jaaro bi sëñ ci boppam moo liggéey jaar bi man la secret bi ci sëñ liggéey man moom laa am gis nga maam Thierno kuñ ñaanloo dafa am ak ku ñaanloo sa bopp kuñ ñaanloo nag ñaare ngi ci ku sa baay ñaanloo wala sa sëriñ ñaanloo la wala yàlla ñaanloo la man nag yàlla moo ma ñaanloo bu la yàlla ñaanloo ne day tàggat lépp loolu waral ma ne am naa secret jaaro boo xam ne Sëñ Tuubaa moo ko liggéey ci loxo boppam loo dégg maaraabu la am naa ko ku am ku ne am na ko buñ ko saytoo man naa bañ a wér jaaro martaba yombul nag moom it sarax bi moom laa waxoon ne am xaaf lay doon xaaf mooy xar mu góor bu mag ak cent 360 doomu tàndarma ma ne woon koomu 35 ans doo ko am pour mu wuy si la dëgg nag dangay am 40 waaye maam Thierno Jaara ba boo ko amee forcément wàllu alal danga ci dégg daali ni mbërum làmb di bëree ba dégg daali ci làmb yow danga nga dégg daali ci alal waaw dem ba àgg ci làmb foo déggee daali yow da nga dem ba egg ci alal foo xam ne da nga dégg daali incha allah man Abdou Xaadir maa ko wax waaw kon loolu mooy jaaru ba moom nag bayre ngi ci ba mu doy wërsëg nga ci ba mu doy xam nga luy martaba xam nga luy martaba maam Cerno bayre dafa am ak ba martaba ba mooy nag mooy nit koo xam ne dañ lay mooy nit ku ñu weg daal dañ lay ku la gis ak da lay jox la cër mooy li gaynde am <laughs> xam nga luy bayre mooy ku la gis bëgg la kula gis bëgg la nag bokkut ak kula gis weg la jaar bi loolu la boo demoon ba ca biiri tubaab it luñ la yilif yilif kun la jàkk ba dana la xoolaat dana la jox cër bu kawe foo mën a nekk waaw bu kawee sax foo mën a nekk. kon mbokk yi yéen ñuy suivre ba léegi ñu daal di ñëw nag ci seen bonus bi nga xamante si ne moom la ngeen di andil ci émission bi bonus bi nag sëriñ bi moo ngi ko tuddee maa faratnaa fi kitaabin min sayin maa faratnaa fi kitaabin min sayin saa su nekk dañu ci ñëw ngir indil leen ci ay may yoo xamante si ne maanaam dañu leen koy may sëñ bi moom moo koy maye ci xam-xamam loolu moo waral mu indil leen bonus bii mu tuddee maa faratnaa fi kitaabin min shay'in nga xam ne di ngeen ko am ci émission bi saa su nekk bu ñu ñëwee ba fin bi maa faratnaa fi kitaabin min shay'in dana ñëw jox leen loo xamante si ne da ngeen ko mën a jariñoo kenn ku nekk fa nga nekk danga nga ko mën a utiliser jariñoo ko fa ci xam-xamu sëriñ Abdou Khadir Ndiaye kon sëriñ Abdou Khadir tey maa farat naa fi kitaab bi min sayin tey lan la indil mbokk yi jërëjëf maam Thierno macha allah maa farat naa fil kitaabi min sayin tey indi nañ leen loo xam ne dafay dox ci wërsëg di laaya boo xam ne képp kuy borom xam-xam bu ñu seetee bu ñu seetaanee rek danañu ko nangul bu wér ñu génnee ko nag ci rabbana iftax baynana wa bayna xawmina bil wa anta xayrul fatihin muy laaya boo xam ne sëñ maam Thierno mi ngi jàpp 3108 3108 dama koy faral di wax lu bari mbokk yi bàyyi leen ko xel gis nga alhamdulilahi mbooleem luy maye xewal alhamdulilahi moo ci gën a gaaw naka la génnee ci xaalis danañ ci amal émission incha allah bu ko defee tey rabbana iftax bayna wa bayna xawmina bil xaqi wa anta xayrul fatihin alhamdulilahi gii mi ngi jàpp 148 nee naa la rabbana iftax mi ngi jàpp 3108 légui alhamdullilah gi nga xamne moy 148 fi mu ne mooy tayibu fois adadu 21 tayibu moy 21 kon alhamdullilah bu fekkee dañ ko darbu ci 21 fois mo lay gennel rabbana iftah baynana wa bayna khawmina bil haqq wa anta xayru fatihin alhamdullilah buñ ko darboo 21 fois moy tolok 3108 jox la ay bi kon yow mbok mi nga xamne da nga bëgg say mbir di dox jàppal aaya bii di ko liggéey bis bu ne 174 incha allah da am xewalu àdduna ba mu doy sëkk wala nga jàpp ko 175 loo ci jël rek incha allah mu doy da am xewalu ko àdduna ba mu doy sëkk. waaye ba tey am nañ ci loo xam ne dañ koy liggéey ci rabbana iftah baynana wa bayna xawmina bil haqq wa anta xayrul fatihin maam na danañ ko liggéey bu dee ñoon la fii dañ koy bind. cent 3108 bii nga xam ne moom la jàpp danañ ko booleeg juróom-ñaari garab yoo xam ne. ñoom lañu wax garabu bis du ñàkk yoo xam ne ñooy bokk benn tool bu ko defee bu boobaa bu ñu ko liggéeyalee nag ki nga xam ne moom lañ ko jox maam Thierno kooku lañ doon wax léegi ci jaaru bare faaw mu dégg daali ci alal incha allah ndax mbuutum aaya bi moo toll noonu. boo ko defee kon maam Thierno loolu lañ may mbokkee rabbana iftax naa wa bayna xawmina yow mi mënut a jàng dégg bu baax ma jàngal la ko rabbana iftax baynana wa bayna xawmina bil xaqi wa anta xayrul fatihin moom ngay jàng 174 wala 175 da nga am wërsëg wu bëri incha allah man Abdou Khadir maa ko wax boo ko mënee di def ginnaaw julli suba gu ne ak ginnaaw julli gee gu ne incha allah man Abdou Khadir maa la garanteel na da nga am wërsëg ba doy bu fekkee nag ki nga xam ne mënut a jàng te bëgg koo liggéeylu moom bi am na garab yu koy booleel dana dégg daali ci alal incha allah kon mbokk lii lañ leen andiloon ci maa faratnaa fil kitaabi min shay'in émission la nag boo xam ne dañoo bëgg bis bu set bu ñu amalee émission ba noppi daañu leen ci may jotaay boo xam ne ci maa faratnaa fil kitaabi min shay'in li ñu suñ borom waxoon nañu maam na alxuraan lépp a ngi ci. maam na Diop mii nga xam ne ñoom dañoo bëgg pomaki orange bu bëggee lekk orange suba suba bu ñëwee ñu jox ko ci maafaral naa loo xam ne suba suba mu lekk orange maam na bu bëggoon a tukki France ne àllarba bii ñu jëm laa ko bëgg wala dimanche bii ñu jëm laa ko bëgg ci alxuraan ñu liggéeyal ko ci loo xam ne wala balay dimanche mu dem incha allah ndax alxuraan yàllaa ko wax lépp ngi ci lépp ngi ci nag képp ku ci liggéey da nga ca xam lu leer waaye yéen lii lañ leen ci jox tey jàpp ko ba beneen incha allah. la chaîne la plus